mbokki internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar Serigne Saliou Gueye àdduna ci li nga xam ne moo ñeel dossier Sonko ak Adji moom nag nee na ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di jàppale Adji saar ñu ci bëri association yi ko wër ay fonds de commerce dong lañ def bile dossier ndax nag kii di Sonko ak Adji Sarr dossier wam bile li muy génnee ci xaalis bëri na lool ñi nga xam ne nag ñoo wër Adji Sarr loolee nga xam ne ko koy dimbalee di ko ko jàppale naan dañ koy xeexal ci réseaux sociaux yeeg ci yi nekkul lenn lu dul benn fonds de commerce boo xam ne moom la ñu def ndax ñoom lañ ci jublu mooy jàppale Adji Sarr saa su nekk ministre yeex président de la république di leen jox xaalis Serigne Saliou Gueye nag mayul dara ki nga xam ni moo di Françoise Hélène Gueye daal di dal ci kawam bu baax a baax moom nag mu ko doon jéem a weddi waaye nag nee na ki nga xam ne moo di Gabriel Kane ak waa CODAS ñoom ñoo nekk ci mbir mi lu ci mënti am sénégalais yëpp ñu ngi taxaw di xool te gis nañ ne ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ñi ngi def ab nemmeeku tuuram te boobu ba tey waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi ci addu naan kan daal dossier Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr loolee nag moo waral ñu ci bëri jàpp ne président Macky Sall li mu bëgg moom ak ay ñoñam am mooy Ousmane Sonko daal di dakkal ab nemmeeku tuuram waaye lu ci mënti am ki nga xam ne ñoom ñoo fare ci Pastef ak Yewwi Askan Wi ñi ngi xam la ne kii di Ousmane Sonko duñu ko seetaan benn yoon dinañ ko jàppale te bi lépp dossier nag bu fekkente ne dañ ci bëgg indi ji ci jaaxa nañu xam ne bés bu procès amee dina am ay kilifa yu bëree bëri yu nekk ci nguurub Sénégal yoo xam ne dinañ wuyu ji à la barre ñoom ñëpp dinañ dem taxaw ñu déglu leen ndax seen tur dugg na ci mbir mi Mamour Diallo mën nañ ko ci tudd ak ki nga xam ne moo di le ministre de l'intérieur am jom ndax ñoom Ousmane Sonko ba mu janoo woon ak doyen des juges ba ca mois de mars lim ko njëkk a wax mooy que ne ñii liimal nii ñëpp laale nañ ci dossier bi te bëgg naa nga dugal leen ci ndax bés bu ñu taxawee ñoom ñu ñëw indi ci ay tontu loolee mooy li nga xam ne actuellement dossier Sonko ak Adji Sarr ñu ngi koy waxtaanee ñu ci bari nag jàpp ne procès dina am waaye dossier bi ci instruction la nekk maanaam juge bi moom mooy xool ndax mën na koo yóbbu procès ou pas waaye lu ci mënti am sénégalais yëpp jàpp nañ ne procès dina ci Sénégal pouvoir amu fi président Macky Sall moom mooy jël ay ndogalam di ko doxalee ni ko neexee juge yi itam nekk ñoo xam ne gëmuñu seen bopp dañ leen di jox ay ndigal ñu koy exécuter waaye lu ci mënti xew sénégalais yépp taxaw nañ ngir jàppale Ousmane Sonko ngir mu nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 gunge ko itam mu doon le président de la République remplacé Macky Sall. mbokki internet yi safoo seetaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér